a arrangé wala nga arrangé la nga wax arrangé wala nga arrangé nga wax dans un pays normal madame le ministre tay du fi ñew lutax tay du fi ñew mu taxaw ñun ak député Sénégal mu nous mom buñ ko dénkee dara bu dé sollicité na leen loxo ñaar fukk wala mu wax ko ñun ñu ngi toogoon ñu les jours suivants rien mu ngi c'est une insulte aux Sénégalais Ça, bés bu nekk bu may naan bokk na ci li jur jafé jafé Sénégal détournement alalu Sénégal mu ñak dem ci yitté Sénégal fi lañ may saga saga yu toy xepp or oh, détournement du saga. légui nak deug la détournement baatu tubaab la bokay wax ci wolof sàcc la sàcc du saaga nii la ñuy Sénégal motax tax am ay dëkk yoo xam ne dinañ toog téeméeri at junni at duñu am courant celle-là elle ne devait pas revenir aujourd'hui le gouvernement aurait dû être changé depuis le jour de la commission bi mu ne c'est comme enseignant bi nga xam ne buñ ko joxee cré mën na ci sàkk tuuti yóbbu ko misaal boobu la joxe woon mais elle a dit tout haut ce que nous tous on connaît peut-être pas tous les ministres mais am na ministres yoo xam ne dañuy sàcc alalu Sénégal moo tax président Macky Sall teg concam ci dossier yooyu amna ay directeur dañuy sàcc alalu Sénégal Macky Sall teg concam c'est ça la réalité léegi ngeen ne am na ñoo xam ne dañuy saaga ku saaga suñu leader ban saaga leader président Macky Sall président de la République son excellence président APR du président Benno Bokk Yaakaar il détourne l'argent de ce pays pour moom sa famille ay mbokkam ak tubaab yi muy jaamu loolu du saaga te bu ma ko waxee loolu moom méngoog dëgg ba pare il encourage ses ministres naan leen vous avez gagné l'élection, vous avez... Madame, détournez l'argent des ministères pour gagner les élections. C'est ça la vérité. Et là, il faut que nous délions les Il faut que nous nous Madame, vous avez un budget de 1000 milliards, les 20%, 200 milliards. Vous avez 200 milliards. Eh bien, 200 milliards, moi, 8000 km de piste. 200 milliards, moi, 2500 magasins de stockage. 200 milliards moins 133 centres de santé bien équipés voilà comment on maintient les populations du Sénégal dans la pauvreté a qu'un courant ci ñàkkum njàng ci analphabétisme les sénégalais boo jël juróom fukk ak n'y yi mënuñu jàng abajada alors que depuis 2012 en 5 ans mënoon nañ éradiqué ñàkkum Djang. bi ndax lan mais parce que nous ñu jël nous bi di nous politiquer ngir suñu nous ngir têtes de ga

les critères. Je vous remercie.